man am naa leneen loo xamante ni moom laa tal nekk fi di complot ci mbir yoo xam ne mbir yu ñàkk fayda la moom njiitu réew mi di Macky Sall ne mbir mi nag kii mu daal sama adversaire la boo xam ne ñëpp xam na ne sama adversaire la waaye yéene ma ko ko Ousmane Sonko ci réew mi di daal di tontu Macky Sall na ko Macky lii nga xamante ni moom nga wax yow sax gëmoo ko yow bu dee am na benn compétence boo xam ne amee nga ko mooy di complot say adversaire di complot say adversaire loolee lañ la xamee te loolee sax la ñu njort ne am nga ci ay compétence bu weesoo loolee amul benn compétence boo xamante ni xame nañ la ko Ousmane Sonko Rewmi Quotidien na ko waa Macky Sall procès verbal yii nga xam ne gendarmerie ñoo si def seenum enquête dossier médical bi ak témoignage li mu wane lan ngay wax boo gisee ni mel te nag loolee nga xam ne moo ci nekk amul lenn luy firndeel na viol am na Ousmane Sonko na ko Macky Sall def nga nag ab campagne désinformation maanaam nag ànd ak sag mbawar bëgg a yàq sama der ak di bind ak wax loo xam ne dara du ci dëgg waaye nag ay la yëwan amul benn sénégalais boo xam ne maanaam gëm na la te sénégalais li ñu gëm mooy mbir mi complot la waaye nag du yomb ci yaawaay yéen a kaay gii di Vox Populi njiitu réew nee na cas lii nga xam ne moo xew ci réew mi di mbiri Ousmane Sonko bu ko ci kenn tudd nañ ko ci keccet journal bi di Vox Populi nee na Macky Sall raxasu na si ba set si wecc yéen a kaay gi di réew mi ko di jaay nee na Adji Sarr mi nga xam ne moo waral coow li am ci réew mi ci bitim réew ba ñëpp di ko waxtaane lu jëm ci wàllum viol gi moom Adji Sarr ñëpp di ko laaj alxamis bi nga xam ne moom la ñu dëg ma la nee ma suba danañu déglu ki nga xam ne mooy Adji Sarr juge d'instruction bi nga xam ne moom lañ dénk dossier bi mooy déglu Adji Sarr ni ko suba yéen a kaay gi di Les Échos nee na lu jëm ci dindi malaanu kiraayu Ousmane Sonko ni ki ginnaaw suba ci ajuma ji wala altine danañu ko daldi simmi bureau assemblée nationale tey jii danañu dajee yéen a kaay gi nee na ñi nga xam ne ñooy waa Pastef ak Fra France dégage ñoom nag tey jii dañoo bëggoon a amal am manifestation waaye nag préfet bu Ndakaaru da leen koo daldi tere Assane Diouf ak Guy Marius Sagna ak Clédor Sène ñoom nag niki démb déglu nañu leen tey jii danañu leen defeere ci kanamu procureur Assane Diouf bi ñu ko laajee la mu xamal enquêteurs yi nee na loo xam ne laale na audio boobee moom la te ku ci tudd Assane Diouf ak Guy Marius Sagna maanaam dëng leen tooñ Guy Marius Sagna bi ko enquêteurs yi laajee a mu leen tontu nee na amul yenn relation yu tax ñuy wax digganteem ak Clédor Sène wala Assane Diouf enquêteurs yi di laajaat Guy Marius Sagna mu ne leen foofu laa yem ci wax ci foofu laa ci yem maanaam mbir mi ma ci débat du ma ci tontuwaat yéen a kaay gi di Vox Populi ak L'As ñu xëy fekk fa Alioune Tine moom nag jamono maanaam daal am na tiitaange lool lool ci fi nga xam ne fi la réew mi toll Alioune nee na nag ma ngi woo ñaari pàcc yëpp ñu ànd ko daal balay réew mi di dugg ci ay njombe giraawaleek musiba ma bu kumba Alioune Tine nee na jamono ji tension bi bëri ci réew mi waaye nag il faut ñu respecter li nga xam ne mooy état de droit maanaam jaay doole gi kenn ku nekk ñu jox ko ak xam ak yelleefam moom Alioune Tine ñaawlu na bu baax a baax maanaam teg loxo arrestation yii nga xam ne moo am ci réew mi ak nag police bi nga xamante ni ñooy teg fitna gars yi loolu lépp Alioune Tine daan na koy ñaawlo a kaay gi délibération ak réew mi quotidien nee na Birame Souleye Diop ak ci parti Pastef la ñu bokk jamono ji yóbbu leen dungu si na maanaam mandat leen dépôt la tax nag bokk na ci ay message menaces yoo xam ne ay menace de mort la yónnee ko ay kilifa ci réew mi yéen a kaay gi nee na ñeneen ñi nga xam ne tegoon nañu leen loxo contrôle judiciaire la leen yenn yéen a gi nee na Abbas Fall ba léegi ni waxul ak enquêteurs yi ndax enquêteurs yi bu ñu ko laajee Abbas Fall ne leen du ci débat du ci tonto yéen a gi nee na li tax nag Birame Souleye Diop ak Abbas Fall ñu teg leen loxo fa ñu doon yónnee message ya maanaam message menace de mort yi fa ñu ko doon envoyé maanaam dig daal bi ñu ko xoolee càmbar ko ak waa Sonatel ñoom ñaar ñii seeni docteur Babacar Diop moom nag nee na Macky Sall mi nga xam ne moo nekk ci réew mi di jaay doole bëgg a soppar ñi réew mi réewum dictature loole nag munuñu koo nangu tey munuñu koo nangu ëllëg te mbiri Ousmane Sonko yu complot la moom docteur Babacar Diop nee na daal ma ngi woo askanu Sénégal maanaam askan wi génn askan wi génn defante ak Macky Sall maanaam résistance jamono ji jot na sëkk ñu daal di ak Macky Sall ndax nii nga xam ne moom la bëgg a yoree réew mi rafetul jaaduwul du samay kàddu damay nettali kàddu yi docteur a kaay gi de la témoin xëy wax ci coronavirus xam ne ni démb daa doon nañu koy commencé njiitu mi di président Macky Sall ñëkkoogul ba léegi yéenekaay gi nee na borom réew mi nee na daal dina ñàkku ci ni mu gën a gaawee yéenekaay gi di Sud Quotidien nee na Abdoulaye Diouf Sarr ak professeur Seydi ak Abdoulaye Bousso ñoom ni ki démb daat nañu ñàkku ba pare am nañu confiance ne askanu Sénégal dinañu leen fekk ci si mbir mi yéenekaay gi fekk fa professeur Seydi nee na vaccin bi am na efficacité amul benn effet secondaire njiitu réew mi di président Macky Sall naam moom ñëkkoogul waaye nag nee na lii bi daal mooy ñàkk-ñàkku yéenekaay gi di Dakar Times nee na am na benn sondage sondage boo xamante ni def nañ ko ci lu jëm ci wàllum ñàkk yi est askanu Sénégal wóolu nañ ko waaye nag sondage boobu ñëpp ci askan wi daal pare nañ jamono ji ñi ñàkku maanaam am nañu confiance ci ñàkku bi sondage boobu nag bureau de prospective économique moo ko amal yéen a kaay gi ne na vaccin yi nga xam ne ñëw na ci réew mi ngir lu soxal wàllum coronavirus gi Macky Sall daan na ci xaaf ñaari xaaf bi mu jox ko Gambie bi mu jox ko Guinée Bissau da leen di jàppale yéen a kaay gi di stade xëy na Bayern na ni ki démb defal na affaire a